yéen taalibe Baay fu ngeen mën si nekk fond baa ngi ni taxaw na te liggéey na liggéey yoo xam ne gis nañ ko fu ñu daan sonne di ko dajale addiya pour chérif ak nangam ak nangam yooyu yëpp fond bi tëj na ko def na ko taxaw na fa taxawaay yoo xam ne noppal na nit ñu bëri donc bon fond war a nekk maa ngi leen di wooyee ñëpp taalibe yëpp ñu xam ne fond bi digalal Baay la ah digalal maa ngi leen di xamal ne fond bi itam ndimbal la ci Baye maa ngi leen xamal ne fond bi ndimbal la pour taalibe Baye yëpp itam gis ngeen bon ne fond bi liggéey pour dolleeku liggéey pour taxaw liggéey pour wone ne mën nga dara mën ngaa yokk dara loolu moo tax a jóg fond am na lu mu def loo xam ne gis nañ ko école bu école bi ci la bokk euh, sëriñ si gan yu ñuy teral ci lañ bokk ak euh, bibliothèque bi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 ndax daaw ci heure bii nii mun nañ ma indilee ci ba pare jënd ci itam lu mat fukki climatiseur yu armoire yu taxaw yi loolu itam bokk na ci li nga xam ne fond bi mu ñu ci dimbale mu gaaw kon nag kii njëriñam ñëpp xam nañ ko fi nekk kon kuñ ci oo rek war ngaa def